leen ak jàmm ami site internet réew mi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi dañ koy doo rek kaddu yi nga xamante ne nag kii di Cheikh Thioro Mbacké rek daal dina koy yëkkati moom responsable Pastef ca Touba la mu daal di xam ne rek moo di turu Guy Marius Sagna nag day ñëw rek à chaque fois rek buñ ne euh, plan B wante nag mbir mu nu mel nag du am ndaxte ki nga xamante nag moom mooy Ousmane Sonko moom dong moom képp rek mooy nekk seen candidat ci élection présidentielle ñu dëdmal nak ci atum 2024 moom moom Thiéré Cheikh Mbacké la mu di xam ne rek mooy honorable député Guy Marius Sagna nag lépp lu mu def rek da koo war a def ndax rencontre bi nga xamante ne rek mu ngi koy def en tant am ci diggante population yi nekk ci diaspora mu nekk rôle boo xamante rek ab député la moom nag la mu daal di xam ne rek ci boobu le mbir Guy Marius Sagna nag nekkul benn yoon seen plan B kii di Sonko mooy seen candidat mooy seen candidat ëllëg naam sax ay weer képp rek dox ñu amal liggante élection présidentielle fii ci Sénégal wante nag leader bu parti Pastef bi Ousmane Sonko jamono ji nag ba léegi mi ngi prison xel nag xaw naa tey waaye ak lépp lu ci mënti am rek daañu ko toppandi. ba tey rek dañ koy doo rek kat yi nga xamante ne nag kii di waajur bu jigéen ci Papa Abdoulaye Touré nag daal dina ko yëkkati rek ginnaaw bu mu tolloo ci téeméeri fan yoo xamante ne rek doomam ji nag ñu ngi ko làq ci ndungu seen moom nag la mu daal di xam ne yaayam ji mooy jamono ji nag situation bu méttee métti rek lay dund ndax li nga xamante ne nag moom la police daal di joxe rek comme motif ne moo waral nag ñu arrêté seen doom ji nag dara amul ci tax kii di Papa Abdoulaye Touré yorewuloon benn yoon biir ket ni essence wante nag yorewul ab sax cocktail Molotov lenn kese la yorewoon rek mooy ab téléphone am portable am jamono ji nañu jàpp ko rek comme acte de criminel mbir mu mel nag mu ngi koy naqarlu bu baax ginnaaw dóor yu métti yi nga ko ko ba noppi rek daal di koy arrêté na ci moomu li xam ne ne kii di Papa Malick Ndour rek moom moo yónnee mbir mu nu mel moom ministre de la jeunesse a nag mu daal di yëkkati ay kàddoom moom mi ngi déploré bu baax nag jamono ji ni nga xamante nekk nekkee ca prison ba ba noppi rek ak ñeneen détenu yi nga xamante ne rek defuñu lenn tey nag moo nekk téeméeri fan yoo xamante ne rek doomam boobu nag nooy ñu làq ko eh, jant bi mbir mu nu mel nag mu daal di yëkkati ay kàddu nee na ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy autorités yi saytu wàllum judiciaire nag lañ lañ war a indi rek ci boobu lee mbir ginnaaw détention provisoire ndax lu ci bëri ci ay détenu rek jamono ji ñu ngi jànkuwanteeg ay problème yu métti foofa ca prison mu nekk mbir moo xamante ne rek mbir mu muy naqarlu la moom Roxaya Njaay di waajur ci kii di pa Papa Abdoulaye euh, Touré.